lu yëglekaay bi xëyee tey ma daal di leen ko yëral l'évidence yéen kaay bi daal nañu dikkal ñun nag si immigration irrégulière bi nga xam ni ndiki démb la marine nationale daal di teg loxo ab benn gaal bu doon yàpp ba fees nag lu toll si ñaar téeméer ak ñaar si ay candidats yi doon dem si réewum Espagne kon kay marine nationale fi mu nii moo leen teg loxo ba gaañu bu ñu ñu àgg de <laughs> réew mii gis nga mbëkk mi buñ ci waxul lambaay dina ñaaw de waa baax na rek Dakar Presse dañu xamal nii kon koy dëgg la de mën a gaañi seen i lim mu ngay toll na ci deux cent deux ñaar téeméer ak ñaar ci ay candidat yi nga xam ni si gaal la ñu yeboon ba fees tepp nag fees dell waaye gis nga marine nationale moo leen mujjee faf teg loxo nag gaañi laj mujj ñu ak Dakar Presse di ñu xamal ni kon koy sama gaañi fi mu ne nii deux cent deux candidat yi juróomi ay jigéen la ñu benn mineur koo xam ne ndaw tout tànk la Aïda Mbodj di yëgal yi na leen waay waay toog leen ci réew mi te gaal gi ngeen jël ti dem si bitim réew ngir yàlla war a su toog leen kàddu yi Aïda Mbodj moo ko yëkkati de di baab ñi nga xam ni tey conseiller ñi nga xam ne ñoom mooy nappkat yi nga xam ne dañuy jël gaal di dem comme pas possible l'indépendant yéen a kaay am ne ko dëgg la kon que immigration clandestine bii bu nekkutoon marine nationale lambay ñaaw ndaxte sama gaañi suma gaañi 202 candidat la ñu de turbine yéen a kaay ne ko loolu tamit dëgg la waaye dama ne gis nga 202 candidat ñoo la ci sa moo nekkoon nag daal di dugg si gaal dem fi nga xam ni mooy seen wàllum tukkal de marine nationale fi mu ne nii patrouille bi mu doon amal moo tax sama gaañi lat ji réew mi quotidien daal nañ dikkal ñun nag si li nga xam nii moom mooy lutte contre immigration irrégulière gis nga bu nekk toon marine nationale lambaay ñaaw yéegle kaay bi ñu xamal nii kon koy ñoom waa marine nationale ñu ngay gën a yokk seen jéego rek ci liggéey gu mucc ayib bi nga xam ne ngi koy def ndaxte ndiki démb nag lañ doon patrouiller sa diwaanu Kayoor sa booru dikkal ñun nag ci brevet de fin d'études moyennes la BFM la de examen BFM si atum 2024 bii yéegle kaay bi ñu xamal nii kon koy ñaari fan kott nag moo des ngir ñu daal di amal li nga xam ne mooy examen bii ndeysaan bi nga xam ne kon kay 19086 candidats la ñu am de totalement nag si jamono jooju kon jàpp leen ne 100940 yi ay jigéen lañu yéeglekaay am nañu 80956 ñooy ay góor kon kay lim bii ñoom ñoo war a daal di amal li nga xam ne mooy examen bi centre d'examen yi yéeglekaay bi ñu xam ne mu ngay toll si 1155 junni ak téeméer ak juróom fukk ak juróom de ay centre yéeglekaay bi nañu moon tey de si atum 2023 2024 te gis nga limu jury ya ma ngay toll 1315 jury si atum ñu ngi amoon nag 1277 jury ba tey atum bi yokku de te lépp nag war a am nag si altine bii mu nekk BFM bi de waaw peuple quotidien daal lay dikkal ñun nag si cadre yi nga xam ne Cheikh Omar Anne yëkkati na ko de Cheikh Omar Anne fi mu nii ma ngay tàq nag tàng jër la def ndaxte tontu na Diomaye président de la République Ousmane Sonko premier ministre di cëppi di tëbëkk di dal xam naa lan la de dañ koo bàyyi si biir lépp nag li ko waral mooy dafa bëgg a nekk présidente assemblée nationale lii moo waral Mimi Touré fi nii di rajar ji di tëbëkk dal di génn di wax waaye fi mu nii xam nañ lépp waay waay na coalition Diomaye président ne ko investir tête de liste nag si nga xam ne mooy législative yi te bu boobaa tamit dinañu xool résultat yi nga xam ni moom lay joxe ndaxte moom Mimi gis nga la woon de ndaxte dañ koo tabbul rek ci bopp assemblée nationale lii moo waraloon moom xamoon na ni carrément duñ ko désigné si bopp assemblée nationale bii de Cheikh Omar Anne ne Ousmane Sonko si boppam yow laay waxal est-ce que xam ngeen benn affaire yéen Sonko dafa négocier li nga xam ne mooy rapport présidentiel 2024 bii te gis nga faaf sax yàlla seen projet bii ñuy wax naan projet projet dafa faaf sax existé wul ma ne la gars yi dañuy lëre rek amul projet nañ ko wax kon fi ne nii sama gars ñi moo leen di bëgg a rey ndax a élection étatique bii yëglekaay bi ñu xamal ne kon kay boo bëggee dégg dëgg njaboot gi nag mu sa saf sàpp tey taq si rip na gars yi fi mu ne si administration bi ak si état bi gouvernement bi man la gars yi seen i gën a privilégié de ndax ku si nekk si ñoom ñu ngay fal seen i rek yëglekaay bi nañu gis nga Serigne Gueye Diop ndax jëwriñ gu ñu dénk wàllum commerce ak industrie fi mu daal nay tabb doomam de daal di tabb ab bel fiyam ba pare étrangères di Yacine Fall ak ki doomam la daal di nommé de DG de l' pour la promotion et le développement de l' waa seetal lii gars yi ne ni kon seen i njaboot gi fi mu ne dañoo saf sàpp si gouvernement bi lii moo tax yéeglekaay bi di samp ab laaj ne la rupture est telle sélective lii nag ab laajte la bi nga xam ne yéeglekaay bi moo ko samp de Walf Quotidien daa lay dikkal ñun ci retrouvailles socialistes bi ak njabootu Senghor gi ndax kenn xamul fu mu toll lépp a ngi si page 3 bu Walf Quotidien yëglekaay bi si boppam daan lay dikk ak ñun nag si baisse du prix du loyer ma ne la askan wi ñu koy xaar de waaye li waral dëgg dëgg dëgg nag yëf yi bloqué wu fu ne ni moom la Walf Quotidien daal di ñun nag si ñaareelu xët gii si page si page 5 lépp a ngi si bi rek tribune yéenekaay bi daal lay dikk ñun nag si journée macabre mari day taali bi nga xam ne ñi si Soudan si diggante ak Jalakoto ak si diwaanu Misira fukki doomi aadama ak juróom-ñett daal nañ di compter nag say accident yoo xam nii mën na la sa gi la am de yëgle bi nañu gis nga yu nga xam ne Fabrice Alioune di ab spécialiste arène sport de combat moo ko xamle na gis nga Tapha Tine bu yeboo na def nank tey moytu bu baax a baax na ki nga xam ne mooy Balla Gaye numéro 2 de maa ko wax de ndaxte gis nga Balla Gaye bi ngeen xamoon démb ak tey ma ne la changement am na de ndax Balla Gaye bi nga xam ne gis nañ ko mooy Balla Gaye bi nga xam ni dafa delluwaat ci ab jeunesse am nag amaat doole yoraat formam Balla Gaye bi ngeen xamoon nag ci at yi ngeen xamoon mooy Balla Gaye bi ngeen gis nii de te gis nga mën na ñëw nag ak force explosivité kon Tapha Tine na moytu bu baax a baax nag ki nga xam ne mooy Balla Gaye numéro 2 cey combat bii lépp dina reel ëllëg ci dimanche bi en tout cas ñuy dem stade